société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo njiitu réew mi di président Macky xam ne ñoom la àndal yàgg nañu leen tuumaal ne amuñu communication bu baax ku wax si ñoom rek wax aw toj penc yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na moo taxit boroom réew mi jamono ji ma ngi xar tànk tuba yëma ngir nag teg ay kuréel yoo xam ne ñoo koy waxal ñoo koy communiquer la ñoo koy convaincre al askanu Sénégal ñoo koy waxal li mu def ci réew mi yéenekaay gi di réew mi Quotidien Assane Samb xëy sampaay laaj nee na Macky Sall ak ni nga xam ne moom lay xaree tànk tubayam ngir teg ay kuréel yu koy communiquer lan la si jublu ndax Macky Sall gañe na réew mi néewal na doole ñi nga xam ne ñooy opposition bi ma ngi doxal ana lan moo fi jar Macky Sall bëgg convaincre askanu senegal ci lan te jamono la joo xam ne ñeen ñi ñoo ngi laam-laamee na Macky Sall dafa bëgg a def ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal Assane Samb ne ñi nga xam ne sax ñoo ànd ak Macky Sall xamuñu lan la Macky Sall di wàcce te li nga xam ne moo wér ba wér mooy Macky Sall am na lu muy waajal ci réewum Sénégal waaye nag na am xel mu rëy bàyyi réew mi ni nga xam ne moom la ko jotee woon te nag Macky Sall amul sañsañ sañ maanaam di joxe réewum Sénégal ci ay giraawaale ki musiba ma bokkumba te Macky Sall te def ci réew mi lu gën a yées li fi Léopold Sédar Senghor defoon wala Abdou Diouf wala Abdoulaye Wade ndax Macky Sall bu defu lu leen raw waru fee def loo xam ne moo leen di yées ndax ab président la boo xam ne bi ñu koy jox réew mi ndaw la te Macky Sall war naa moytu lépp loo xam ne dafay andi giraawaal yi ay tooxi doona ak taal am réew ci biir réewum Sénégal Macky Sall nag bu dee am na ñenn ñoo xam ne moom la war a moytu du ñi nga xam ne ñooy ay adversaire am waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko jege ay jege ñaaleem ñu ñoo koy puus di ko dugal ci loo xamante ni waru caa dugg yéen a kaay gi de Le Quotidien ak réew mi Quotidien ñu fekk fa maître Bamba Cissé ak metre El Hadj Diouf ñaari avocat yii ñoom nag bàyyi nañu Serigne Modou Kara ndax dañoo bëggoon a layal taalibe Serigne Modou Kara yi nga xam ne ñoom lañ làq jant bi dugal leen ci kasu bi ndax ay jege ñaale Serigne Modou Kara ñoo woowoon maître Bamba Cissé ak maître El Hadj Diouf wax leen ne leen dañoo bëgg ngeen défendre taalibe Serigne Modou Kara yi nga xam ne téye nañu leen waaye nag ñoom leer dañoo déggaat Serigne Modou Kara ci ab audio muy wax ne soxlawul kenn ku ko layal Serigne Touba la soxla mu daal di kay défendre yéen kay gi du l'Observateur yi nga xam ne làq nañu leen jant bi soo moytuwulee lu toll ci fukki ate kasu danañu leen ko tëcc yéen kay gi di enquête wax ci vaccin bi nga xam ne ñoo ngi koy laam-laamee ne dafay faj coronavirus te Sénégal ak yeneen ci ay réew ñu war leen see jox ay dose journal bi xëy na sampablaaca ne vaccin bii nga xamante ne bëri na ay réew yoo xam ne bëgg nañu ko defar ak yàkkamte gi nga xam ne moo si am ak course bi nga xam ne kenn ku nekk ma ngi dëj dëji ngir nag taxawal ab vaccin ndax dina nekk vaccin bu baax loole la waa enquête xëy di laaj di ji raawul moom gëmul vaccin boobee ne dafay faj coronavirus dafa jàpp sax ne wàllum publicité lañ sa jubloo yéen kaay gi di enquête nee na en tout cas vaccin bi nga xam ne moom la ñuy wax ne mooy faj coronavirus tiital na gaa yu baree bari yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy ci école yi nee na école yi soo moytuwulee jàngoroy coronavirus ci dina fa gën a law ndax bëri na ñoo xam ne respecté wuñ mesure barrière yi ñi nga xam ne ñooy syndicalistes yi ñoom nag ñoo ngi dànkaaf foofu Dame Mbodj la xam xamle nee na jamono ji li nga xam ne moo war dañoo war a tëj li nga xam ne mooy école yi Saourou Sène secrétaire général bu SAEMS e nee na nag li nga xam ne moo gën a mën a gaawal lawal jàngoroy coronavirus maanaam mooy école yi bu duggee ci école yi rek Sénégal mën naa dugg ci ay giraawaale ki njombe ndax jàngoro ji dina law nu mu ko neexee ci réew mi yéen a kaay gii di li quotidien nee na ca banlieue bu Dakar lu toll si juróomi téeméer ci ay nit yoo xam ne teg ndax dañoo tëkkutoon ay masque yéen a kaay gii de la témoin nee na woppi law ci réew mi leer na école yi ñoo koy bi train express moo teggi jackpot bi ndax li ñu ko natal ci ay koppar bëri na loola toll na ci deux yu fegg deux loole la nattal Mansour Faye yéen i kaay gii xëy nag wax ci autoroute à bi nga xam ne cher na ba maar mara day taali démb ci assemblée nationale wax nañ ko Mansour Faye na ko Mansour Faye bam na naam ñu ne ko autoroute à péage bi cher na loola Mansour Faye nag ba mu demee ca micro ba lamu leen tonto mooy autoroute bi bu dee dafa cher ku ko mun ta nga jaar ci suufa yéen kaay gi nee na député yi yàq nañu musiba ak mbelengaana société sénate yéen a kaay gi de réew mi quotidien nee na am na ñeenti membre collectif ñoo lànk ñoo xam ne mandat nañ leen dëpp ni ki suba ci àllarba ji la ñu leen di àtte journal bi nee la ñu leen di mooy nag bokk ci ay manifestation yoo xam ne dañu koy tere te ñoom ñoo lànk dañu doon déposé ab lettre d'information ci préfecture bu Ndakaaru moo taxit ñoom Guy Marius Sagna démb jano nañu ak taskatu xabaar yi ñoom li ñu gis ne état bi moom la wax ne dañoo bokk ci manifestation bu ñu interdit ñoom nee nañu loolu du dëgg mensonge d'état la ay kàcc ak i fen yoo xam ne état bi ma ngi koy fen yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu tàggee sous préfet bu Goudiri yéen a kaay gi nee na ci am néegam la ñu ko fekk mu ñàkk bakkanam stade yéen a kaay xëy ci ligue des champions nee na duel bu saf sàpp am diggante Cristiano Ronaldo ak Messi ndax Juventus Turin mooy dem sa Barcelone yoon yéen kaay gi di sunu lamb xëy na sampab laaj na Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2 kan moo gën a aay loo Lo am na lu toll si ñaar fukk ci ay victoire Balla Gaye 2 am ñaar fukk ak benn ci ay victoire ba Modou am na ñetti défaite Balla Gaye am ñeenti défaite Modou Lo am na benn nul Balla Gaye 2 amagut nul Modou Lo ak Balla Gaye ñoom ñaar kenn ku nekk nekk na roi des arènes waaye ñoom ñaar bëri nañ Balla Gaye 2 daan na ko ñaari yoon journal bi nee na Modou ak Balla kan moo gën a xarañ société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may may seen revue de presse